def nañu liggéey bi pendant ñetti fan ñu ngi ci région Thiès euh, def nañu région bi daje nañu ak euh, gouverneur ak membre comité régional euh, de gestion des épidémies def nañu daje ak préfet ak membre comité départemental bi fii ci Thiès def nañ ko ci Mbour def nañ ko ci Tivaouane dem nañu sax ci comité de village boo xam ne ñoom ci comité bi ñoo defoon seen ciblage ñu wax ñu lan lañ ko defee ak problème yi ñu ci am dem nañu visité ay magasin de stockage léegi ci tënk bi li nga xam ne mun nañ ko wax mooy chef de service yi présenté nañu situation bi nga xam ne li ñu géré woon loolu lañ ci jot li ñu jot ak ni ñu ko dépensé wax nañ ñu aussi difficulté yi nga xam ne moom la ñu am ci mise en œuvre noté nañu loolu daje nañu ak euh, catégorie professionnelle yi nga xam ne ñoo nekk ci biir gox bi daje nañu ak hôteliers yi daje nañu ak commerçant yi daje nañu ak transporteurs yi daje nañu ak dawalkatu jakarta yi ñooñu ñëpp nekk ñu ñu mën a tuddee ay impacté de la Covid daje nañu ak li ñuy wax tam famille pauvre et vulnérable yi nga xam ne ñoom la ñu jagleeloon aide alimentaire problème yi nag am na mooy lii nga xam ne moom la ñëpp di wax dafa am retard ba ñu waxee aide bi ba tey ji mu ngi bugg a mat ñetti weer te matul ci euh, kër yi ba léegi donc loolu euh, problème la am na ay denrées yoo xam ne ñëwaguñ wala li ñëw doyul par rapport ak quota dëkk bi et à ce titre je crois que liñ ci war a jàngat mooy nawet bi mu ngi ñëw magasin yi ñu def euh, ceeb bi ak suukar yi dañuy am na ci yu bëri yi ñu gis dafay senn yenn yi bunt ya fa ñu ne ndox bu taawee foofu day dugg ci biir te bu duggee ci biir dina yàq lool moo tax ñu ne dañuy def recommandation pour que li fi nekk gum ceeb ñëw na diwlin ñëw na suukar euh, ñëw na nañu joxe loolu ak saabu bi ñëw na nañu joxe loolu fii ak fukki fan su fekkee kii bi mët pat bi ñu complété bu la mët parce que aussi foog ñu xam fan la problème bi jóge ab usine moo koy defar di ko indi xamuloo capacité usine bi par jour ñaata la yooyu yëpp c'est des question qu'on peut-être tey mënuñu de manière waxe ci lu kii mais yooyu yëpp mun na ne te loolu boo ko dee xaar dina defaat fukki fan wala ñaar fukki fan balaa ñuy egg foofu te ñu ngi dugg ci nawet nag li ñu yoroon di yàqu nañu jël li fi ne jox instruction gouverneurs yi ak préfet yi ñu mun ko joxe te ñu xamal population bi aussi lii mooy li fi ne nekkul ne dañu ko wàññi volontairement nekkul ne dafa am lu nekk ci suuf mais en réalité retard moo am dans la livraison de certains produits et à ce je crois que balaa li fi nekkoon di yàqu war nañu mën a jël décision ne nañ joxe lii nit ñi xamee ko noonu mu mu mu mu mu jeex facture ndox ak courant facture ndox ak courant posé na problème fi ñu toll nii ci fépp foo dem parce que acteurs yëpp ñi ngi ne ñu ngi ci situation pandémie bi tey ñu ngi leen di couper ndox di leen couper courant léegi li ñu bëgg mooy defaat recommandation ci wàllu boobu pour que état bi waxtaan ak Sen'Eau ak Senelec pour que ñu accepter ay moratoire rééchelonner dette bi bu ko defee nit ñi mun a fay seen arriéré nit ñi nekk ci aafiya jàmm parce que fi mu ne nii stress ak pression bi nekk ci kaw nit ñi buñ ci boolee couper leen ndox wala couper leen courant dinañ indi tension ci dëkk bi te loolu dara jaru ko am na beneen affaire boo xam ne wax nañ ko ci ndox mi ñi dëkk ci zone rural bi ñooñu nekkuñu ci Senelec ñenn ñi nekkuñu ci euh, seen Sen'Eau ci ay forage ak euh, Azer la ñu nekk état bi décision bi mu jël nañu def information leeral ñooñu aussi que dinañ leen ci boole pour que ñu appuyer leen pour que ñoom aussi ñu supporter seeni euh, facture d'eau ak électricité bu ko defee dinañ mun a rétablir loo xam ne mooy injustice boo xam ne ñooñu noonu lañ ko gisee. dernière question euh, loolu problème mu RNU la wax dëgg yàlla li ñu constaté mooy problème mu Sénégal bi ci ci ci lii nga xam ne nii yëpp dañ ko def mooy registre nationale unique registre national unique bi dafa bëri erreur bëri ay doublon bëri ay nit ñoo xam ne. mais deux 2014 bi ñu koy defar doonuñu woon liggéey pauvre la ñu woon mais en 2020 certains sont devenus fonctionnaires d'autres sont décédés et cetera loolu dafa laajoon ñu def ko mise à jour donc ci biir li wax dëgg yàlla ñu defar liste boobu ba jël ko jox ko nit ñi population yi à la base jot liste bi xool di xàmmee diw ak diw ñoo ci nekk gis ne ñii amuñ ci droit indi nañu coow lu rëy ci biir dëkk bi ci biir euh, koñ yi donc balaa ñu ko doon joxe waroon nañ ko def toilettage bi bu baax wala au lieu ñu naan liste RNU ñu jox lépp population bi à la base ñu mun a def ciblage jox ko ñi nga xam ne ñoom lañ ko waroon a jox et loolu doon na régler définitivement une question parce que li nga xam ne population bi moo ko cibleel boppam ba léegi doo ci dégg benn coow mais li état bi ciblé jël document bi mettre ko à la disposition je crois que c'est ça qui a été fatal pour li nga xam ne dañ ko wax ci liggéeyu euh, distribution ceeb bi yëpp. mu mu mu mu yàqu ko yaa produit yoo xam ne dafa yàqu est-ce que xayma nañ ko. xayma hmm. ko pare est ko remplacer. non am na ay perte ah, mais pour le moment. perte bi war a gën a graaw mooy su tawee n'est-ce pas leneen li mooy euh, denrée yi dafa jóge dakaar ñu wàcc ci chef le lieu de département dañ koy wàccee foofu ba pare. après yeneen oto doogaa ñëwaat jël ko pour yóbbu ko ci commune waaye yéegal wàcce yéegalaat wàcce yéegalaat wàcce pour yóbbu ci quartier ba mais lu bëri dafay yàqu et puis ça coûte beaucoup ça a trop coûté à l'État je ne pas ñan ñoo def boobu planification également ñan ñoo def boobu boobu tableau de bord mais en réalité ñooñu aussi indi nañu problème bu mag ci lii nga xam ne moom la ñuy. merci merci monsieur le gouverneur euh, merci merci merci Euh, je suis membre du comité de suivi et chef de la délégation de l'équipe qui a séjourné dans la région de Thiès. Je suis membre au titre de représentant des partis politiques du pôle des non-alignés. Je suis accompagné de l'honorable député euh, Nicolas, Nicolas Ndiaye, qui est représentant de la majorité présidentielle, et euh, du colonel Touré, qui est conseiller du président euh, du comité général François Ndiaye, mais aussi de Monsieur Omar Diop, qui est membre du comité et représentant de la société civile. amoon rek mooy que bi commencé séddale bi tamit état du Sénégal di dafa jàppoon ne effectivement dina taw surtout dans certaines régions zone yooyu lañ commencé. waaw zone yooyu lañ commencé voilà bi ñuy si léegi. fi mu nii si région de Thiès je que période bi période saison des pluies si région de Thiès peut-être ça peut aller jusqu'en de juillet pour ñu donc on espère mais li ñuy bëgg mooy actuellement faire la distribution te ni mu gën a gaawee tàmbali ngeen seen tàmbali nañ ko je pense que Nord Thiès Nord a commencé Joal a commencé Pout a terminé, eh? Khombol eh, a presque eh? terminé, Noto également est dans la définition, Tianaba tout a été mis en place, Toubatoul également, donc dans tous les endroits, dëkk yu bëri en tout cas commencé nañ. yaakaar nañ ne ci si defee dinañ yóbbu tamit produit yi ci fépp foo xam ne war nañ ko yóbbu pour que ñu mën a continuer distribution bi. ndax tamit ndigal bi ñu jox dañuy wax ne suggestion comité bi la ñun jox nañu ndigal ba pare. te séddale leen li fi nekk. bés mm-hmm. rek lañ ko comprendre ñu en particulier pâte alimentaire la. waaye tamit am nañ si yaakaar ne dinañ pare. parce euh, que même le deux pay woon nañ. waaw ah, léegi buñ ñu mayaatee dara dañuy gën a rek yokk suñu waajtaay. Mm-hmm. te yaakaar nañ ne dinañ pare mais altine. dinañ def réunion boo xam ne comité bu suivi la pour gën a xool xam lañ ci toll. et espère que alxames incha pare. li ma bëgg a yokk rek sur ah. le registre unique bi. Mm-hmm. waaw mooy wane difficulté yu ñu si signalé je pense que ñi ko defoon xamoon nañ ne am na peut être difficulté yu mel noonu moo tax bi ñuy jox registre tamit nee ñu jox nañu ndigal boo xam ne mooy lu ngeen si fekk loo xam ne jubul na ngeen ko jubanti maanaam bu ngeen ñëwee fekk benn famille ñaar am fa bu la ngeen ji mën na ngeen jox ko ñaar waaw dindi leen kenn ki bàyyi fa kenn ki ki ngeen remplacer les les que ce Diop a évoqué tantôt c'est c'est plus lié donc à la mise Parce que c'est une qui est en train d'être que pour l'essentiel, nous avons reçu les denrées maintenant à la Ce qui manque, c'est la pâte alimentaire, mais nous avons reçu l'instruction depuis le week-end de commencer à distribuer sans tenir compte donc de l'absence la pâte alimentaire. Parce que la pâte alimentaire va arriver, sinon d'autres moyens seront utilisés pour donner l'équivalent donc aux personnes qui sont concernées. Quand est-ce que vous allez démarrer Non, nous avons démarré la distribution, je pense que vous pouvez aller vérifier. on a démarré la distribution, c'est bientôt terminé. À, à Noto, on a commencé la distribution, c'est bientôt terminé. Ah, à, à Joal, on a commencé, c'est bientôt terminé. À Tiaoun, la distribution a commencé. Mm -hmm. Je pense que de ce point de la mise en place, vers les, les commissions de distribution continue. Nous espérons que vers la, le milieu de la semaine, on pourra finir ce déplacement-là, les denrées que nous avons reçues, et terminer la distribution peut-être en pas très longtemps. Monsieur le gouverneur, comment gérer justement la euh, poursuite de la distribution, en même temps préparer la reprise annoncée par le chef de l'État hier pour le 25 oui, absolument. Bon, oui. ça aussi, on était très engagés. Hein, et on avait vraiment bien, bien euh, entamé la chose. Parce que même le 2, on aurait pu euh, commencer, notamment, mais il fallait donc euh, pour utiliser ce temps-là également pour continuer à peaufiner ce que nous faisions. Euh, lundi, on a une réunion donc, du comité de suivi. On va vous y confier des vraiment, le jeudi, on sera, pourra démarrer donc, à point. Il a évoqué également les, les, les problèmes sur les Je pense que ça aussi. Le ministre l'a dit, quand on fait un registre du genre, a, il y a toujours une marge d'erreur. jusqu'à 10% à septembre. Mais ça a été aussi l'occasion, lors de cet événement, de faire euh, toilettage. De faire le toilettage et d'enlever effectivement tout ce qui ne doit pas figurer sur ces là et de la remplacer. C'est aussi la conseil qu'on nous avait donnée. Hein. Faites le toilettage. Nous savons qu'il peut y toilettage et mettez à la place des gens qui euh, sont réellement impactés par le Covid. Et je pense que ce qu'on a fait dans les commissions donc, de, de,